ajaratu Aminata Touré mi day yalla demo nak bolé won ak papam 1955 56 muy docteur Madi Touré mu nekkoon à l'époque président de l'association des scolaires et étudiants de Kaolack maag Madiène Diouf mi sama mag ñu nekkoon ci ronam mu nekkoon suñu président mom ak ambassadeur Najirou Djouf, Majid Najirou Dia Li nak bu xewee Nafisatou itam suñu sœur la won ma ñëw fi ànd ak Madiène Diouf ak ay personnalité pour jaale ko li ñu bokk loolu mooy Sénégal bu neexee ñoo ko bokk bu naqadee ñoo ko bokk ki dem nag nit yàlla la woon te premier sage-femme sénégalaise yi la bokkoon ca kaw lax yàlla yóbbu na ko ñëpp xamoon pratique islam moom na mu doxe te Sénégal ñaar moo ko yore musulman yi ak chrétien yi muy ñi nekk ci yoonu Muhammad sallallahu alayhi ak ñi nekk yoonu Insa ibnu Mariam ñoom ñaari yoon yëpp yoonu yàlla la mu ñu ko wax sabilillahi jël ngeen jëf